asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe jot na ndigal ci sëriñ tubaa cheikh mohamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér tey jii ci àllarba ji yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer rajab di bisub séentu bu njëkk bi bi juróom benn waxtu ci ngoon tegalee fanweeri minit mu yabal serigne Mamor Mbacke mom Cheikh Mahamadul Fadal ak serigne Cheikh Mbacke mu serigne Abdou Latif ak serigne muntaha mu serigne Mamor Pakala ak serigne khadi jahate ñu dajé ci kër serigne Touba gi ci juma ji serigne Mamor yëkëti kàddoom wax ne serigne Muntaxa nee bu suba ci alxemes ji la bëgg fa ab murit mané ne ci biir réew mi ak bitim réew nak la wax na maase ci jàng alxuraan ni nu koy jàng it sëriñ bi dafa wax ne ku mën a jàng yow képp ab kaamil na ko jàng ku mën a bokk nañu bokk ab kaamil ñu ko mënut te mën a wut ñu leen jàngal ab kaamil nañ ko wut te jànge ko ci kenn ku ne fa nga ne ca sa kër bu dee ci sa place nga toog na ko fa jàng waaye fo nit mën a ne ca mën a wàcc ab kaamil daal bu subaa na teewlu ñun ñëpp ñu jàngandoo alxuraan kaamil bi it buñ koy jàng sëriñ bi dafa wax ne nañu ci fas bala ñu ko tàmbali ne ñoo ngi fas yéenee sant la sëriñ Touba yàlla mi ko bind ñi ngi fas yéenee sant la sëriñ Touba yàlla boromam subhaanahu wa taala di fas yéenee sant la sëriñ Muntaxa sëriñ Touba mi nu yàlla booleel suñu fasee ñaar yooyu ba noppi nañu ci boole jàng xasida waaye nañu ci boole bernde ci képp ku ko man suñu ci noppee nan ñaan yàlla jàngoro ji nga xam ne moo tiital àdduna sun borom génne ko ci àdduna bépp génne ko ci doomu aadama yépp état d'urgence nag la sëñ Muntaxa woote nee na nuñ ko mën a gaaw a defee suba ci alxames ji gën jaa yeex ajjuma ji waaye ñaari fan yooyu bu ko génn kon suba la benn fan ci weeru baraxlu ndax weer wi feeñ na ci Tuubaa